2021 fii ci arène nationale ak Leewtoo production. asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi amoon mbégte contentement yi ñuy suivre sur Kewel Info kon ñu koy defee à chaque fois jotaay làmb jotaay lamb nag ñu déplacé wu ñëw école de lutte Balla ni numéro 1. di ko ñaanal yàlla fi mu tëdd dàqal ko fu fuy fu mu jógee ak képp ku mu fa fekk tey nag ñoo seet si Lamine Faye coach coach bi nga xamante ni tey gannaaw bu fi Père Balla bàyyeekoo moom la fi bàyyi xale yi. ñu gis ko nag muy def performance yu rafet macha allah xale yi di am combat gars yi di bëre lépp nag dañu dimbali yàlla suñu borom mais tamit ak jàmbaaram ndax sonn na ci xale yi bu baax a baax moom ak ñu fekk muy ñoom mbës et tout te nag dañuy euh, euh, fas yéene waxtaan ak moom ci làmb ñëpp xam nañ Siteu Papa Sow dimanche bi di ñëw la incha allah ak yeneen i combat yi nga xam te ne ñoom ñoo toftalu dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi Lamine maa ngi lay nuyu. waaw Fatma Dia maa ngi lay fay di la siyaar di nuyu waa Kewel Info yëpp rawatina seen DG maa ngi koy nuyu bu baax di ko siyaar di nuyu géejawaay ak askanu làmb yëpp rawatina école de lutte Balla fii ñu nekk nga ma fekk si école 16 maa ngi nuyu ñëpp di suyaar ñëpp te naan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg te di dolliwaat di ñaanaat muy per Balla Gaye 1 fa mu tëdd yàlla na ko gënal fii mu jóge si baat Seydina Limaam mu yaakaar. Mhm. Lamine euh, dañuy ñëw ci li nga xamante ni ñu gis ni instant bi làmb sàjj na. combat yi am na mbër yaa ngi bëre yow nan nga gisee instant bi làmb ñi doon jooy naan làmb yàqu na ñi naan làmb instant bi dootul dox mais nan nga gisee instant bi làmb. waa làmb moom mooy li may wax rek man li ma daan wax laay wax rek di lancer waat appel rek président de la république ndax ñun amuñu lu dul làmb làmb mooy sunu sport national su deewee rek mooy day rey sunu culture dëkk dëkk ñun sunu culture làmb la. football bi am na fi basket bi am na lépp am na mais culture bi nga xam ne nii ñun ñoo indi muy làmb mooy sunu culture di ñaan sunu borom rek fii ñu ko jàppoo nii nañ ko jàppoo noonu mu gën a yaatal affaire yi ba làmb ji gën a jëm kanam daal fi mu ne nii daal làmb ji mun naa ne sàjj na te ñu ngi ciy tàmbalee gis suñu bopp dëgg-dëgg waaw. nan nga gisee fan yi xale yi ni ñuy def bu seen mbër daanee wala bu daanoo ñu jël chaise yi buddi ko yàq affaire mu mel léegi dafa nekk benn slogan boo xam ni dañuy gis ci làmb yi léegi day am di kii rap di répété nan nga gisee loolu. waaw tey jii xam loolu tey jii amateurs yi duñ ko def supporters yi ñoo koy def fans club bu mbër yi mais tey jii loolu suñ ko defee tey jii mën naa ne yàquñu yàqaluñu stade bi seen mbër la ñuy yàqal ndax CNG moom mu ngi fi te liggéeyam lay def chaque jour kuñ fi gis say supporter def yenn yi suñ paree ñu teg la daan daani yu rawatina rawatina supporter ñu fi gis ngay dajji siège xam nga ne yow arène nationale ay caméra surveillance kese la dañ lay bàyyi ba nga dem ba toog sa kër ñu fekk la fa jël si la kon nañ moytu rek bàyyi yooyu quoi ndax sport lañ wax làmb daan ak daanu la kuñ si daan nga muñ génn stade bi nang soo munta toog seetaan dem ku ci daanit noonu ñu bañ a yàq seize quoi ndax stade bi dañ ci def ay milliards yoo xam ne nii pour sunu sport la moo tax ñu def ko dañ doon jooytu stade jooytu stade ngaloo ngalloo fans club bi nañ ñu dimbali rek baal ñu sunu stade noonu quoi. Mhm. ku ne Lamine fay nekkoon du lutte Balla Gaye Lamine mbër la ci woon doon entraîner à un moment donné gis nañ ni muy ànd ak Balla ni numéro 2 di ànd ak moom dem na ba sotti ko dem na ba sotti ko pétrole. <laughs> mais Lamine tey moment boobu noonu soo si ñëwaatee Balla Gaye ak Tapha la woon. waaw Balla Gaye ak Tapha la woon waa mooy comme li ma wax rek man moom làmb mën naa ni tey jii dama cee tarbiyu lu bëree bëri. dama cee tarbiyu parce que dama takk ngemb mooy li ma rek entraîneur bii ma nekk tëbu ma tëb rek ñëw na entraîneur la dama cee nekk tarbiyu ko di dund làmb di takk ngemb di bëre dem équipe nationale dem fépp di bëre ba ni sunu borom defee li gën tey ji sama yaay bëgg ko. daan ma ko tere teewul may forcé di forcé mais benn jour mbappat lañ ma jamoon jam-jam bu metti si laa jaaree nag tëddoon ko hôpital lu yàgg si laa jugee bàyyiwaat bàyyi bëre teewul nag yàlla defar sama digganteeg Balla Gaye 2 fekk bi ñuy ne si école bi ñoo nekkandoo xale ñun ñëpp ñu daan ànd guddeeg bëccëg teewul it ba ma bàyyee teewul it ma maa ngi ci wetam nekk ci keppaaram lépp lu ñuy lu muy dugg ñu suy duggandoo di si jàppandoo di defandoo lépp pour sunu borom may ñu ndam rek loolu la combat moog Tapha nag essence boobu su moom erreur la woon rek ndax essence la boo xam ne mën naa ne Thierno Gueye moo ko indi woon moo ko indi woon te xam nga essence dafa zone te daa am ay gàllaaji zone yoo xam ne dafa nduroo woon ak essence bi te essence bi ñëw na ñetti yoon si cimikaay bi man génne naa ko sànni yóbbu ko foo xam ne lu mat 3 mètres mais kenn xamul lu essence bi lu ko fay indiwaat mais xëy na essence bi daa bokkoon si victoire bi rek moo tax mu laal ko. Ah, non boobu si biir cimikaay bi la boobu ñu ngi woo Balla Gaye Tapha ñu ngi leen di woo si fekk mu desoon ay biteel doon profité pour sang yëpp pour mu bañ a bàyyi dara si cimikaay bi. si laa ko sottee essence bi si la tafee ba ne ma Lamine essence nga ma sotti ma ah taxawee gars yëpp découragé ah. boobu gars yi tey jii ñaanuma ko yàlla mais Tapha Tine su daanoon Balla Gaye kon gaa yi dañ may rey duñ xool Lamine lim daj si combat bi yëpp. moo ko jaay la ñuy wax ndax moo ko sol essence xam nga sénégalais moom dañoo ñaaw làmmeñ te xamuñu ni Balla lépp lu ko wër kenn gënuma koo bëgg kenn gënuma woon fonk bisam ndax dama si daan daj lu ne bàyyi jabar bàyyi yaay bàyyi doom bàyyi yëpp ñëw féetewoo ak moom. si lu mu nekk lu mu ne ma acca ma ne ko acca musul ne acca ba ma ne ko déet. kon ñoom ñëpp tey gis ñu woon loolu jour boobu te moonte làmb jooju ñun liñ si daj ñoo ko xam mais tey ji benn nit nag dina def benn erreur bu ndaw doo xam ne kii erreur la nga bëgg ci def yoo xam ne mooy loolu mais teewul dara sant yàlla daal ba mu daanee daal. ba ko sottee essence bi la ma sotti commencé li moom waxul dara waxul la. non non non non Omar amul problème yooyu moom bi mu waxee dafa taxaw rek jël sarbet bi gars yi kii ëff bër xam nga essence garaawul mun na dugg sa bët nii mais même pas dix secondes day dem. loolu la affaire yi demee nag. mais après yow nga ban réaction après ba nga taxawee yow kese amoo loo naan ay amoo amoo daal loo xam xamante ni yaa ngi koy sa xel wala nga tiit wala dara. ah comme ma tiit ay su daanoo fu ma jëm ak yooyu. naan mais comme tamit ba ko eh, bi am na tamit am na parfois tamit nga jékki-jékki xam nga siisu wala toog yow kese ana. non siisu woon naa sax siisu woon naa parce que ci mikaay bi am na ñoo xam ne dañ ma doon xool tet yoo xam ne waruñu ma koo xoolee parce que man daj naa ci làmb ji loo xam ne ñoom dajuñu ko. parce que man maa nekkoon ak Omar ñoo daan fanaan ñoo daan def lépp ñooy dem si àll bi ñooy dem fépp mais ñu ma doon xool bët yoo xam ne dana leen ñi suñ sañoon tey jii safaan am ba ñu wut fuñ sukkandiku mais tamit yàlla day fay coono quoi. Mhm. te après bu na ne. bi Omar daanee defuma dara ñoom ñëpp a daw ñoom ñëpp daw ñëw dal sama kaw. ku ne di yuuxu di kii mais fi ma toog laa ne tekk rek naroon nañ ma gaañ sax ku nekk di wax man leen non sant yàlla après si lañ toogee ni si stade bi comme avant Omar di jël trophée yi di waxtaan naan ma ñii naan ma mere woon nañ la ñii naan ma nii ba ci président Moussa Ndiaye naan ma waaye booy si Omar daan woon tey lees de ñoom ñëpp mais ñoom ñëpp damay jàpp rek xëy na daj moo wax nañ ma seen bopp quoi ku ci ne wax nga ma sa bopp mais teewul nañ xam ne lamb Omar boobu maa leen ko gënoon bëgg foofu man maa leen ko gënoon bëgg foofu ndax xam naa risques yi ma si jël yëpp Euh, ban ban combat Omar moo la gën a marqué ba mu nekk durant ba muy bëre nga ànd ak moom ak ba mu nekk roi de arènes combat boo xamante ne moo la ci gën a neex boo xamante ne Lamine dund na ci lu metti wala combat boo xamante ne tey Lamine dañ naan du baax Lamine gëm ni lii dina ban combat moo la gën a marqué ci combat omari yi. non combat Balla moom su ma la xëy benn affaire ndax Balla Gaye combat yëpp événement la woon kombam am yëpp niñ ko daan jëre maari day taale. benn combat rek la ci bëre ñu yombaloon ko muy baabooy ndax soo xoolee est-ce que entraîné ñu ko ay 15 jours lañ ko préparé xaw ma 20 jours. li làmb ji doon bari bari lool ko baabooy 20 jours la ko baala gay entraîné te boobu ñoo doon contact géej man moom baay Ma Ndiaye ak yow Balla Gaye contactul ak sax ay mbër ñun ñi la doon contactal. Ah. ñoo fa nekkoon di jàppanteek moom di bëreeg moom. mais ak ni ma amee jo làmb ji ma gën a marqué nag si kii mooy yëkki Yékini marqué la. waaw parce que Yékini kutoo kut da ko waroon daan. ndax Yékini demoon na ba ku muy bëreel doo am espoir danga nga naan ah yàgg-yàgg bëre bukkeeg mbaam la xam nañ fa muy mujje mais moo tax combat boobu tey gaa bi ko Balla daanee bettu ma bettu ma de jubilé wu ma. bettu la. non bettu ma xam nga lu tax damaa xam ne dix combat Balla Gaye mën na koo daan parce que boobu àdduna ñoo xamul Balla Gaye gis nañ ko nii rek Balla ak fugg beeg yooyu mais bëre bi nekk ci moom moo bari car macha allah bëre bi bari na. bëgg na li muy def te buggoon na combat bu te ñun ñii buggoon nañ ko moo tax ba mu ko daanee bettu ma jubilé wu ma sax billaay jubilé ma kontaan naa nag ndax Yékini mi ñëwoon du daan du daan du daanu ñu daan ko à la manière nag. dañ ko daan mu kat appi mu bañ arbitre yi xam nga CNG yaa ma gën a xam mbëru séeréer la te boobu séeréer si ñoo doon arbitre ñu bàyyi làmb ji jàll yaakaar ni boobaa mënoon nañ ko nëxasal ñu daan ko jël bu gën a ñaaw. Mhm. ban si. Balla Gaye bu njëkk bi. non boobu waaw boobu waaw boo ndax fekkoon na ma ak Balla ñu xaw a xuloo sax. xuloo nañ ba jour combat bi laay doog di ñëw. bu <laughs> su ma la xamee affaire yi nga ñaari moom Modou yëpp mosuma jubóog moom yëpp. gars yi dañuy yëpp dafa fekk ñu xuloo. bu njëkk ba sax noonu lañ xuloowee xuloo xuloo xuloo ba jour combat bi. lañ wax wax wax wax woo ma ne ma da ngaa war a ñëw soo yorul gàllaaj yoroo dara sax da war a ñëw. jour ba bi ma ñëwee bi ma gisee kër papaam dafa reetaan jouru combat bi la may doog di gis dafa reetaan ba combat bii mujjaat nii moom Modou tax fekkuma sax si stade bi dama génn dem xam nga jour ba Boy Niang 2 moo doon bëreeg nongolo maa toogoon 16 bi bi Boy Niang 2 daanee nongolo dama génn dem. don dara parce que jubóo ñu nit nag soo leen jubóowul te làmb moo doy waar da ngay moytu rek xam sa bopp. looloo tax fu mu jaaroon du ma fa jaar. est-ce que nekkul Modou Modou moo yëngal biteel yi. non non non kenn yëngalul biteel boobu dañoo xuloo woon xarita xarit rek man tamit dama yor xam nga rek jikkooy lébu te dama bañ ku ma yet. Balla Gaye moom xam na sama jikko man xam naa jikkoom te nit ki nag soo leen jubóowul da ngay moytu te man bugguma di tooñ tey jii soo ko jege woon ba dara dal ko mooy li ma wax rek sénégalais dañoo ñaaw làmmeñ ndax man dama weex dunq man sama parcours ak Balla Gaye dama cee dégg lu ne te defuma tinuma te gis nga ñii toog di ko nettali ñëpp man maa leen gën a bëgg Balla Gaye li ma Balla Gaye jaral jaralu leen ko mais man li may wax rek Balla Gaye sama xaritoog moom ak sama ànd ak moom du jamono jii laa koy wane ndax fi mu ne nii loo indi rek duñ gëm mais su demee ba bàyyi làmb ba doonatul dara ba tudd Omar Sakho boobu lay xam ne man xaritam laa waaw li may wax nii dama ko wax si internet nag te damaa bëgg ñu jàpp loolu sama nit la ndax su dee benn fan sax ànd nañ ko bànneex te man du fàtte. bilaay. ngeen nekk ay xarit yéen ñaar nga dem ba nekkul ndax xarit dem di ànd xaritam ba nekk. non dañuy waxtaan nag maak moom. maak moom man ba may nekk ak moom sax laaj ko ñoom Baye Ma njaay ngay laaj Max mbargaan lañ ma daan wooyee. Ah, waaw parce que man ay père Balla ak ñëpp dañuy wax mais man dama yor sama xel. te ñoom xam nañ ma su ma musaan di wax dafa may déglu su ma musaan a wax rek bàyyi ma jaay ne cey Maxime Mbargane mook Tafa Buuju moom sax xam na ndax bëgg na def tara ba taay ma ne ko lii soo ko defee du yoon nii ak nii ak nii mu fipp ne loolu mais day jégjég toog yedd boppam toog na sax contact jot ñu war a contact yi mu ne noo saal lay dem ma ne ko lan ngay def saal yow combat bi fii mu toll nga naan da ngay contact ñu xulus mu ne ma maa tey desoo si digg géew yaay des ne ma nañ leen de ma ne ko dew ma dew ma mu taal otoom yéeg ñoom Baye Mandiaye ak ñoom dem ba Fadja côté pharmacie la mu jékki-jékki dégg naa ne non Mandiaye nañ leen dëpp rek wax na dëgg nañ leen dem ñu kontaagi parce que man damay wax ak moom dëgg si dëgg laay ànd ak moom àndum bokkuma ak ñi nga xam dañ fiy nekk nii di ko neexal ak naan ko yaay diw ak yaay diw ak yaay diw man ànduma ak moom àndu hypocrite ak àndu àdduna ak àndu jamono jii li mu laaj ñoom noonu la am na ñu si bëri ñoo xam su ma neexoon lim tuur noonu la ñuy àndee ak moom man ànduma ak moom noonu damay ànd ak moom te yàlla tax